aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi wax ci kàddu Serigne Fallou Mbacke mi jiite liggéeyu commission d'organisation bi li xew fii kat euh, xañ na lu bees la tey ji nag mos a gisee ndax ñooñu ci ay boori 4 lan jot benn xabaar bu ne am na mbooloom jóge ci boori garage Dakar jëm si jumaay Touba mais nag dañuy def si ab tawaaf ñu daal di ñëw di leen xaar. ban accident 28 ba axe seigne touba gi kilifa gi Sëñ Fàllu daay toog ak taxaw ak seigne kilifa ñom nuyu ak ñom ak ñom dalal leen laaj lu seen tank ñu ne ñom ñew ngir def ci tawaful ifadati wër jumaa ji juróom-ñaari yoon dem ziar seigne fallu tawaaf moom xamuñu ko ci jumaa ji ndax jumaa ji du kaaba te borom wutiwul loolu kon te ngeen a dellu laagi ndigal sëñ bi ndax bu joxee ndigal li wax leen fu ngeen di jaar danañ ci am ndigal mën na dal ngeen def seen bëgg-bëgg waaye li ngeen waxee ni moom mun ñu ko nangu ci jumaa ji ndax jumaa ji du place bu ñuy tawaafe ndax tawaaf ifaada mun ko ñëpp xam moom sol sol weex tawaaf moom du firiwut ne yaa ngi Tuubaa ndax Tuubaa moom loolu ziyaaran xam waaye tawaaf moom màkk la wére ndax màkk la ndax jaamu yàlla balaa wér di kaa bokk barab ba laaj da nga koy defee tawaaf moom Tuubaa mu xamuñu ko ñu xam mooy ziyaar nañ xam jàkk julli julli génn ziyaar jàng alxuraan jàng xam-xam baa nga toog di jël sa kurus lan fi xam waaye bees moom xamuñu ko te njëlbeen gi sax kilifa gi d'accord nañ ñun waaye xam nga mbooloo mi tamit dañu koy lay fipp ñu forcé wu ñu def ñu dem ñu jaay fi war jaar mooy alerte waa police wax li xew ne ñu teewe ko daal nag def suñu liggéey ndax dañoo dénk lu ñëpp bokk muy jumaa ji ñu jël suñuy xam-xam suñu jot suñu doole taxaw ci kanam daal nag ñun li ñu digal moom doon bàyyi kenn di ko xët ñu xëccoog ñoom xëccoog ñoom def suñu pexe ba téye kilifa gi ak ñeent nit police ñëw jël leen ñu des ñoom ci biir ñu yóbbu lii mooy fi xew. ndax jàppante amoon na xëccoo na xam nga ñun dañoo am na lu ñu mooy wootal ci xikma dana leen woo dana leen woo ci waxtaan leen njëkk a woo laante biir ñu jëm ñoo waar. ndax xam nga bu nee ñoom dañuy tawaaf kese mën naa firi ziar kese waaye tawaaf dafa dafa nakkiraa léegi ñun nu nga jublu ñoom tawaaful xuddóo mi ifaalati loolu dafa leer léegi mooy mooy ñoom makka daa bokk ci sarti aj màkka nga def tawaaf nga wër kaaba gi di caa bokk boo dugg si ak boo koy boo fi aj booy booy booy ziare si umra wala nga aj ñun nag fii di umrawukaay du ajukaay moo tax duñ bàyyi kenn nga fiy wootu loo xam ne nii suñu xamu ko diglewu ko ñun daal suñu lay dox ci leen nekk incha allah.